jàngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média xibaaru marax yi la ca gën a fës éclipse lunaire la ñu koy wax weer wi nag dana am rek ci anam yi ñu koy gisee képp ku nekk mën na ko seen kon loolee nga xamante ne ñu ne bariwul sax lu ñu koy faral di gis melokaan wi nag dana mel ni rek lu xonk loole lan lay firndeel dinañ ci jokkoo ak Maram Kayra ma jiite astronomie ci Sénégal ñàkkum ndox mi nag ñenn ci askan wi ñu ngi yuuxu dañoo boole ñàkk facture ba tax ñiy sàkku nag ci kër gi eh, di sd mu leeral leen ci mbir moomee tàgg eh, wàllug wér-gu-yaram kon eh, daanu ci àddu rek ak ñi nga xamante ne dañoo amee jàngoroy roño di sàkku nag li nga xamante ni moom la ñu duppee transplantation rénale muy mayep roño ñu daal di koy gaaw tàmbali ci Sénégal ndax léegi si daf am na charte boo xamante ne nii da ko santaane ñu mën ko fee def loolu yi tamit am na lu ca diine wax fële ca Mali doomi réew ma nag ñi ngi leen di xaar ci mbañ gàcce ya ni ki débér ji nag ngir ñu tànn rek seen njiitum réew candidat Mali en action di ngeen dégg ay kàddoom ci euh, xibaar yi moom nag nee na li ko yitteel rek mooy kaara kaarangey euh, réew ma tàggat yaram Bombardier Eumeu seen ëllëg la ci aser ji euh, ci stade Léopold Sédar Senghor muy banlieue bu Ndakaaru Mbuur fépp nag ñu ngi waajal kon combat boobee ponk yaa ngi nii yaatal gi léegi léegi. dale nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko rek ak jafe-jafe yi ñu nemmeeku ci wàllu ndox mi ñenn ci askan wi nag ñu ngay yuuxu amuñu ndox boole kook facture yu cher ñoom yi yi daal xamuñu lu mu leen di nuru ba tax nañ ngi sàkku nag ci kër gi di SDE mu leerale leen uh, ci mbir moomee dañ ci ànd ak Maymuna Njaay fajaxteel Ernest bàyyi ko unité parcelle Parcelles Assainies ñëw fii ci agence SDE bu Yoff ngir changer si conteur li mu seetlu nag mooy. facture day ñëw nga yaakaar ne day moo war a tane facture bi gën a seer. madame Guèye moom it loolu lay ñaawlu. teg ci naan amul lenn loo xam ni mën na koo def ngir mu soppeeku. amuñu ndox facture yi ça ça inchangé alors on n'a rien à on subit on est bu fekkee ni ñuy jëfandikoo seeni robine la. foofu it nee nañu am nañu fa ay jafe-jafe yoo xam ni kenn mënu koo xam. oo oh, bàyyi saro bi na mu xel wala mu am fit facture facture su ñëwee saa yi parce que index bi day seex. am na ñoo xam ne xamuñ ko am na ñoo xam ne it xam nañ ko parce que dañu contrôler seen robinet yi di xool. ba ubbee robinet bi dafay am bruit bu muy def donc da leer ne ubbi nga robinet am na bruit mais il faut nga ubbi parce que da ngay bëgg nelaw bu robinet ubbee nga yëg jóg root. te es obligé de faire mais mënuñu ci dara aussi on est obligé de faire avec lu mu cher cher cher tamit mënuñu toog di xool robinet bi te di ubbi. laata jafe-jafe yi ñu nemmeeku ci yenn ci gox yu ndakaaru di amaat ndox askan wi ñu dékk suñuy micro luñ ñu xamal mooy ñu ngay wëy di daj ay coona yoo xam ni tar na lool. may Maimouna Ndiaye niñ ko waxee amuñu ndox seeni i facture cher na loolee lu ca nit xam euh, directeur marketing ak clientèle bu SDE ma ngay sàkku rek ci waay jëfandiku bu ñu amul ndox yi tamit nañuy faral di tëcc seen i robinet ndax bu ndox génnut ngelaw loolu di génn rek mën naa euh, ñëw ci seen i euh, facture loole la xamal sunu naataango ba mu jokkook moom ci téléphone na ma ngoog ñu àddu ci leneen muy liggéeykat yi nga xamante ne nag euh, ñoom la ñu jëlee rek euh, fa ñu ne woon ndax liggéey APIX ba dalal leen fële ca Sendou toxal leen foofee ñoom nag ña nga yuuxu ne boo moyul daañu leen ti ci site boobu nga xamante ni fan lañ leen yóbbu ndax nee ñu site boobu dafa am leneen lañu ñu cay def ñu ne nag loolu mënuñu ko nangu tey mënuñu koo nangu ëllëg hadiyatala dañu di ay boroom kër yu ànd ak njàqare ñu bokk si ñeenti téeméer ak juróom-ñetti ak juróom-ñett liggéeykat ca Sendou ñu nar leen jëlee béréb bi nga xamante ni foofu lañ doon liggéeyee. préfet fekk ñu fa mercredi bi passé ne premier ministre moo ko yónni ndax décret présidentiel moom moo jël plateau bi yëpp séndu pour port minéralier de Bargny ñu ne d' accord ci lañ toog di liggéey continuer continuer si liggéey suñu liggéey sànq la fa benn commandant ñëw bu gémi fekk ñu ñuy liggéey mun ne ñu mënatu leen a installé wu fii ñu ne ko lu tax mu ne moom daal dafa jot ay ay ordre ci supérieur am comme quoi que war a dégager site bi liggéeykat yi di ñaax askan wi di artu nguur gi tamit rawatina njiitu réew mi ak premier ministre am bi leen fa toxaloon. bett nañu trop parce que préfet bi mu fa mujjee waxewul noonu wax ju wax ju nooy la wax ne premier ministre moo ko yónni si ñun kon bu ñëwee tey jii ne nañ fi jëlee ñun dinañ jaaxal dinañu bett. xeex bi ñoom artisan yi fas nañu yéene taxaw temb ngir rek aar seeni moomeel. suñu taxawaay moom mooy ñu bàyyi ñoog suñu site ba keroog suñu site bi ñuy yóbbu pare parce que ñun suñu site bi mën nañ faa nekk. plus de dix ans parce que mur bi miiru port bi ak ñun sorente nañ duñu banque suñu loxo xeex bi suñu bakkan lañ ci teg parce que lii la moom mooy li ñu am suñuy place la autoroute bi jël jox ñu maigre somme déplacement pour ñu dem installé wu ci àll bi foofu seen kon suñu bakkan lañ ciy teg incha allah. ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett bokk na ci tôlier mécanicien ak peintre xamal nañ ne dinañu yaatal xeex bi ba ci bépp artisan ngir rek ñu joxaat leen seen i jaajëfal ko Hadia Talla ñu wax ci transplantation rénale bu ñu ko déggee nag mooy rek mayeb roño ni ñu koy faral daan defee ci yeneen réew yi Sénégal léegi si ñu mën ko fee def ndax décret ba euh, maye na ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo amee jàngoro jàngoroy roño yàqamte nañu lool ñu daal di tàmbali euh, lu ni mel askan wi tamit ñoom nee nañ noppi nañu bu ko jaree rek ñu maye seenub euh, roño waaye xam nañu ni fii ci Sénégal am na ay ngëm-ngëm Fatima Taba Khady Diène sonn yaramam diis ginnaaw ab jalis bu ñu ko doon defal teewul mënta nëbb mbégteem bi mu yégee ni euh, décret bi soxal transplantation rénale bi adopté nañ ko soxna si am lu toll ci fanweeri at ak ñaar ni lenn képp mooy bëgg-bëggam jamono ji am ku ko mën a may roño moom kontaan nañ ci torop moom yàgg nañ di ko mbébé parce que chaque jour daal ñu ngi ñaan yàlla pour affaire boobu am bañ jàppale ñu ci bu amee daal moo ñuy gën a parce que ñun ñu yor suñuy njaboot ñaan nañ yàlla toog ak suñuy njaboot ba ci kanam waaw waaw tafajum jalis moom xaalis bu bari la moom wax dëgg fa dañoo dem ba suñuy famille dañoo jeexal tàkk yoratuñ dërëm feebaru roñoo doon lu bari dem sax ba jaaxal nit ñi sénégalais yi ñu dajal ne noppi nañu ngir joxe seeni roñoo teewul ñu jàpp ne am na loo xamante ne aada ak cosaan itam am na ci wàll mbir mi jaamu yàlla la soo ko defalee nit sa bopp nga ko defal place boobu mu nekk soo si nekkoon di ko def te da ngay soxla ku la ko defal kon soxlawu ma ci mbokk na nekk doomu aadama rek. nit moom loo ko mën a dimbali nga dimbal ko ci muy rein ak lu mu mënti doon parce que ñu ni neen la ko dañoo waxante dëgg sama mu am problème rein yow nga ñëw may ko ngeen bokk dafa c'est intéressant man aussi ma ñëw defal ko noonu am na solo parce que kenn xamul kan mooy jëriñ keneen. ngir jëfee boobule dogal nag mu mën a nekk faw rek ñu yeesalaat bërëb yi nga xamante ne fa la ñuy fajoo. bu ñu sukkandikoo ci nit ñu dajeel. hôpitaux yoo xamante ne vraiment euh, yu mucc ayib yoo xam vraiment pare nañ pour loolu comprendre nga li jiitu daal nañ ko def li jiitu mooy lépp li nga xamante ne war na mën a ànd ak loolu rek ne fi ab bërëbu fajukaay bu mucc ayib am lépp lu ñu soxla ngir faj feebar yi ni mel waaye itam personnel goo xamante ne mën nañu ci boor boobule doon na loo xamante ne war nañ koo matale laata ñuy jëfee bile dogal. Euh, Fatimata Ba euh, dogal boobe nag euh, am na lu ci dine wax muy dine lislaam di beneen dine am na nag lu ñu wax ci boobeeb dogal muy mayeeb roño lu ñu mën a nangu la naam fii ci Sénégal nag la ñu wax rek mooy ku koy may ku ne day fekk mu doon koo xamante ni kuy dund la loolu nag mooy santaane bi waaye ak lu mën a xew rek nañu fexe rek ba sàmmonteeg lépp loo xamante ni nii doomu aadama doomu aadama la muy àqam ak yellefam dañu ci ànd ak maam Biram Diouf ñu taxawal nag kuréel gi nga xam ne ni mooy saytu lépp luy war a mën a tax ñu amal don d'organe yooyee waaye am lu ci des lu ci mel ni xam nit ña cey nekk laata ñu amal paj gu njëkk gi. donc équipe bi am na ay laboratoire am na ay radiologue am na ay am na yeneen ay ay ñuy def cardio toutes les spécialités donc loolu mën naa wax ne am na même si lu gënoon a jafe am mooy immunologie bi matériel bi am na maintenant nag luy doxal matériel bi moom moom la ñu war a xool. moom li ñuy wax euh, les les consommables. amal don boobu mel ni maye sax lii di roño ana lan la ci diine xalaat oustaz Abdou Karim Ba. nit soo amee sa mbokkum jullit mu nekk ci xat-xat bu tool noonu nekk ci feebar bu metti bu toll noonu nga am compa compatibilité comme ni koy waxee mën ko servir quelque part te du la déranger du yàq dara ci sa dund loolu l'islam n'a rien à rejeter sur ce principe. nit ki maye ñu fexe ba dundam du ci am jafe-jafe ni ki nit nga xam it moo koy jot waaye it di bañ a joxe cëru nit ki loole doon na nag lu église bi di santaane bu ñu sukkandikoo ci abbé Alfred walli Sarr recteur grand séminaire bu Sébikotane fii ci Sénégal nag loi bi li mu wax mooy kii dund rek moo mën a kon def don boobu. pour le moment ñi gaañu bokkuñ ci ci loi bi donc au Sénégal suñu commencé. Euh, nu ñuy commencé mooy su mbokk may la rek peut-être et puis mentalité société bi waaw non religion bi sax ba ñu ko parce que pays diina rek koy def mais peut-être que ñu dem ba ñu waaw ba ñu nit ñi ba lii dugg déjà. nit ki nag wax dëgg yàlla bu xasee génn àdduna rek mayetu ñu nit mu mën a génnee koo xam ne kii raxala ilaa jiwaari rabbihi génn na àdduna ñu mën ko xëcc génne li ñu yor ci moom loolu duñ ko rafetlu lislaam it du ko rafet rafetlu. église bi nag terewu ko waaye di xamle ni war na am ab certificat bu goo xam ne ni médecin bi moo koy defoon ne ni kii dafa faatu mbala sax parent nit nga xam ni dafa faatu nangu ne mun nañu jël benn ci cëram joxe ko. jaajëfal ko bu baax euh, Mame Birame Diouf euh, ñu wax euh, ci procès en appel bu xalifa Sall procès boobee nag ñu di ko doon wéyal nuñ ko xamee tey jii ndawal nguur gi di sàkku rek koppar yu tëre ci xalifa Sall ne war na koo génne lu jege ñaari milliards la mu jàpp nag ne ndàmpaay la bu war a jugee ci moom maître Ousmane Seye bokk rek ci ñiy layal nguur gi moom nag la mu xamle mooy mairie bu Ndakaaru la muy sàkku nag doon partie civile ci boobee procès waruñu ko nangu benn yoon Fatou Bintou Konté benn milliard huit cent trente millions de francs CFA pour li nga xam ne moom la ñuy wax réparation matérielle ak milliards pour li nga xam ne moom la ñuy wax préjudice moom la état du Sénégal moom a ne moom mooy constitution partie civile bi a bañeel mu jàpp moom bu jafe-jafe di am ci procédure bi moom rek moom la ville de Dakar war a fay bu fekkee sax musuñoo nangu état du Sénégal demander réparation ndax nee bu ñu xoolee li nga xam ne moom moo di article du code de procédure pénale ak les articles combinés ak 153 ñoo xam ne état du Sénégal moom moo ci am ay yàqu-yàqu moom Félix Antoine Diome maître Ousmane Sy nag bu ñu xoolee ci onzième jour du procès en appel bu Khalifa Sall bi moom li mu soutenir mooy constitution de partie civile bi nga xam ne ville de Dakar mi ko bëgg a def moom ba mu tàmbalee wax sax moom maître Ousmane li nga xam ne mu di procès bi moom mu am ba tax ni mu jàpp nii li nga xam ne moom mooy ville de Dakar dañ ko war a condamner ndax bu xoolee ba ci biir dafa mel ni dafa nekk en connivence ak ñi nga xam ne ñoom ñooy prévenu yi ba tax ni ki nga xam ne moom mooy juge bi dafa war a rejeter bi des constitution maître Baboucar Cissé moom mi ngi jàpp ni li nga xam ne moom la wax affaire partie civile bi lee moom bu sañoon kii di partie civile état du Sénégal dong lay nekk ñeneen ñi ñoom défense la ñu ndax bu xoolee partie civile dafa mel ni moom ak défense bi ñoom ñoo ànd mi ngi delluwaat rek di ànd ak ki nga xam ne moom moo di maître Ousmane Seye maître Samba bi tey nag nee moom fi mu ne nii bu sañoon li nga xam ne mooy délit d'association de malfaiteur bi nga xam ne dañ ko rejeté woon ci première instance bi ñu delloo siwaat ko infirmer ko bu baax ndax moom gis na ni gars yi dañoo lëkkaloo ngir def li nga xam ne moom mooy njuur njaaj moom maître Moussa Félix moom ne li ko metti moom moo di bi dafa dafa war a tenir acte ci li nga xam ne moom la xalifa Sall def interjeté appel ba pare ñëwul nag soutenir bile appel acte boobu faaw juge bi wax ci Euh, Fatou Bintou Konté Khalifa Sall ñu gis nii démb nag def naa euh, déclaration ne moom euh, candidat la ci woteeg faluk njiitu réew mii di ñëw bu ñu sukkandikoo ci docteur Khadim Bamba Diagne mi nga xamante ne nag moom moo jiite laboratoire bu recherche économique ak monetaire nee na nag noonu képp la mënoon a defee ndax li nga xamante ni mooy procès bi dañu ne politique da ca loolu wax na itamit lu soxal ci parti socialiste bu Sénégal ak PS mi ne rek candidat moom Macky Sall la ci atum 19 nee na loole dafay wane rek ni PS daal ba moyul ma ngay gas bàmmeelam ci Sénégal Alassane Ba candidature xalifa Sall lu nu mënoon xaar la te lu war la sax bu nu sukkandikoo ci Cheikh Ahmad Bamba Diagne Khalifa Sall nag daal di suspendre ñu bëri député maire bu Ndakaaru officialisé ci déclaration bi mu def candidaturam ci atub 2019 xalifa li mu def moom c'est politiquement correct parce que politiquement correct mooy euh, jàpp na ni jàpp gi ñu ko jàpp politique da cee laxasu lu bëri euh, mu jàpp ni tamit euh, moom lu tax ñu jàpp ko mooy jàpp nañ ni candidat bu sérieux la adversaire bu sérieux la pour président Macky Sall mais dinañ xool ndax pouvoir judiciaire dina attaque dina ko dagg wan ko ni yow tëj nañ la mënoon def doon nekk candidat wala xalifa moom dañ ko mën a bàyyi mu nekk candidat mais ak lu ci mën a am rek. Euh, euh, rafetul ci deru démocratie Sénégal. ñu gis ne kon lépp mu ngi dépendre ci wàllum justice wante ci jamono ji nag ñu jàpp ni kii di Khalifa Sall dañ ko présumé innocent ndi yi demee waral déclaration bi ni mel maire bu Ndakaaru wane boppam ci jamono ji nga xamante ni formation politique bi nga xamante ni moom lay réclamé wu ba ni ngi nii rangé wu ci ginnaaw Macky Sall di candidat Benno Bokk Yaakaar. ñaaw na trop trop trop mais nii rek la parti socialiste mën a def. ñaaw na trop ci dégg sax parce que parti socialiste mooy premier parti parti bi gën a ngand Sénégal parti socialiste dama mës dégg xalifa Sall benn jour en 2004 mu ne waa PDS xaw xaw ma xamul ndax xam nañ li ñuy yor mais ñoom xam nañ li ñu perte état Sénégal dafa bëri confort mm. waaw te te confort poison la ñooñu dañ ko xamoon perte ko 12 ans ñëwaat du gàtt ci confort bi boo xoolee ay mag lañ ñi nga xamante ni géré woon nañu avant 2000. ñooñ bu ñëwaatee di gérer da nga leen di rey rek mais duñ bàyyi. bu fekkente ni nag parti socialiste géré wut nguur daf ko war a conquérir bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ni moom la ñu tàllal suñu micro want nag ñu mën a jàpp ne formation politique kii di Léopold Sédar Senghor dana dem ci palub jonganteep njiit réew te du am candidature bi nga xamante ni ci parti bi la jóge waxoon naa ko sànq ci euh, ndoxte li ak li ñu duppee éclipse euh, luneer bu ñu ko déggee nag euh, weer wi la ak melokaan wi ñu koy gisee tey jii bariwul nag lu muy am bariwul lu nu koy gis waaye nag tey fii ñu ngi koy séentu loolee bu baax a baax Maram Kayra moom moo jiite mbootaay astronomie ci Sénégal Maram Kayra maa ngi lay nuyu. mangook ni ma ko waxee rek ak li nga xamante ni ñu ngi ko fas yéene séntu euh, ci kanam tuuti ñu duppee ko éclipse euh, lunaire ndax mën nga mën nga ñu rek euh, fii ci loolu lan lay wax. waaw bu ñuy wax éclipse ñu tàmm di ko wax jàpp weer ci li ñu soxal tey muy éclipse lunaire mooy weer bi buy wër suuf si dina tollu benn waxtu boo xam ne. dafay ñëw dugg ci takkandeer bi suuf si di sànni ci asamaan si donc comme jant bi mooy leeral suuf si euh, lu jant di leeral rek day bàyyi takkandeer suuf si ñu nekk nag day sànni takkandeer ci jaww ji weer bi nag ci dox bi muy dox day ñëw ba dugg ci takkandeer boobu et période boobu mu ciy dugg nag ba ba mu ciy génn loolu lañu tuddee éclipse donc loolu moo nar am tey bu neexee yàlla fu asamaan si set nit ñi war nañ mën a taxaw euh, seetlu ko euh, asamaan si lëndëmagul fi mu nekk nii Euh, waaye jàpp nañ ne bu ay vingt heures vingt heures trente jotee ba asamaan si commen commencé lëndëm weer bi bu kawee rek nit ñi dinañ ko mën a gis mu nekk lu ñu lu ñu jàpp euh, maanaam day lëndëm rek euh, plus ñuy avancé nag dina commencé di tàmbali di génn ci takkandeer boobu mu duggoon ba vingt trois heures et daal fekk nag mu génn ci takkandeeru suuf si mu duggoon loolu la ñuy wax jàpp nañu weer bi moom la ñuy wax éclipse. mu nekk mu nekk phénomène boo waaw éclipse nag euh, dañuy jàpp ne que ci at bi dina am ñaari éclipse lunaire waaye du nekk bërëb bi nga taxaw rek saay bu amee ñaar yooyu rek nga gis ko yenn saay mën nañ ñëw fekk mu gën a kawe ñun bërëb bi ñu nekk yenn saay mu gën ko suufee mën nañ nekk fii par exemple Sénégal éclipse am Afrique du Sud ñun duñ ko gis mën nañ nekk fii mu am Europe te ñun duñ ko gis waaye bërëb bi nga nekk daal euh, pour mu am fii day nekk loo xam ne day raar Euh, moo tax xëy na tey éclipse bi sax euh, li ci gën a euh, am solo tamit dafa nekk éclipse total maanaam weer bi fànn yëpp la ñuy nëbb xam nga dafa nekk fi mu nekk nii li ñu tuddee pleine lune pleine lune nag dafa war a leer boo xoolee rek da nga gis weer bi yëpp waaye bu lëndamee nag ci période boo xam ne pleine lune la da ngay jàpp ne que fànn yëpp la ñu nëbb donc loolu moo nar a am tey li koy gën a raaral tamit bi pa mooy éclipse bi gën a gudd ci siècle bi dina def cent trois weer bi pour mu jàll takkandeeru suuf si mu war a jaar jërëjëf moo tax sax moo tax muy egg bàyyi vingt trois heures jërëjëf euh, Maram euh, Kayra ñu koy jaajëfal bu baax a baax mu jiite rek euh, mbootaay astronomie ci Sénégal xibaaru biti réew yi waxoon naa ko sànq ca Mali ak candidat bu Mali en action moom nag yëkkati na ay kàddu dénk ko rek sunu naataango ba fa nekk jamono ji di Ibrahima Kane moom moomee di du Igor jara moom nag nee na li ko yitte rek moom mooy wàllu kaaraange ga ca Mali bëgg na nag réew yi nga xamante ni ñoom ñoo fare ci Afrique sowu jant ñu gën caa dugal. seen loxo moom moom rek bokk ci ñu yootu réew Mali ñu war a nag euh, daje kon ca mbañ gàcce ni ki euh, dibeer ji ñu teewlu ay kàddoom. je que c'est aux Maliens d'assurer la sécurité du Mali. dama gëm ni maliens yi ñoom ñoo mën a assurer karange bu Mali te sax ma xamal la lenn ay militaires maliens ak sénégalais ci turu communauté international bi. ñoom dañ doon dem ci ay réew yu bari di fay kon ay taal yoo xam ni am na fa ay coow naka la ñu accès ci situation bi dama jàpp ne laaj na ñu def ci taxaw seetlu. l'émiettement ça fait pratiquement un milliard de dollars qu'on dépense. ma nga wax mu bokk rek ci ñuy yóotu. ngir jiite réewum Mali ñu wax uh, ci tàggat yaram nag ak uh, combat bi nga xamante ni ñu ngi koy waajal démb uh, ëllëg sax laay wax di jéggalu ëllëg lañ ko fa yéene waajal diggante Eumeu Sène la ak Bombardier ci stade Léopold Sédar Senghor muy banlieue bu Ndakaaru fu nekk ña ngi koy waajal ñu ànd ci ak Salif diwaanu Pikine supporters yi ku nekk mu ngi wax xalaatam Tay Shinga ngir bu demee daan Bombardier ñenn ñi nee nañu Eumeu seen faw nga tey ci combat bi. ñeneen ñi neeñaku faw nga gaaw xam fi ngay tegit sa tànk. waaw ah, ëmma lañ bëgg mu daan mais ëmma dañ koy conseil dañ koy wax ne ko xoolal na tey def ndànk parce que ki muy dajeek kooku nekkal koo xamante ni mbër bu ndaw la ponkal la champion la am na mystique yàgg na bëree. na tey lenn rek lenn rek la mën a am ci bombardier pour daan ko mu ñëw mu koy cokkaas. combat bi moom ndànk rek def ndànk rek parce que ki muy bëreel luur la te du dem ñun tamit dañuy xaar. dañuy xaar def ndànk lu ñu yàlla may rek ñu jël loolu parce que bu dee bëri tamit am am na ko. ñi nga xamante ni Eumeu Sène lañ bëgg di ko béggee ñoom nee ñu dinañ ko supporter ba sës. ñoom ñëpp fas yéene nañoo sax dem stade wala bokk ñu bari ca ñoom. Pikine moom ma leen di ñaaxaat rek ñu gën a mobiliser wu. xam nga ñu mobiliser wu jàppale seen doom Eumeu Sène mu dem jël ndam li waaw lu ñuy def mooy accompagner mbër mi rek parce que stade moom Eumeu Sène moom ñun ñoo xam moom. ñi nga xamante ni ñooy supporter te mënuñoo dem stade ñoom nee ñu dinañ supporter mbër bi ci seenu kër ci seen kanamu télé. moom yàpp guddi la ku nekk dafa la rek yaa see fële Eumeu Sène Eumeu mbaaw la xanaa sangu ba set jàpp ba sell yor suñu suñu sijaada julli. di ko ñaanal saa yu nooyee rek ñu ngi ñaanal Eumeu Sène yàlla na ko yàlla may ndam. ah du ma dem stade waaye dinaa toog ci kër gi sangu ba set lal sama basan julli sama ñaari rakk fas ko yéenee ñaanal ci li ma xam ci yàlla. dañ koy gunge bu yàlla dinañ ko yendoog moom gunge ko jàppale ko ci ci ci bépp fànn nag. Eumeu Sène dafa bëgg a jël roi des arènes bi ci bombardier ñaari mbër yi samedi bi la ñuy laalee stade Léopold Sédar mooy arène ba. Euh, ca Mburit euh, ña ngay waajal euh, combat boobe ca Bombardier fa mu fekk baax foofee nag ñu ne dugg ba génn ba sax ña nga cee taxaw bu baax a baax lépp rek ngir kaaraange ga yaayu Bombardier sax ma ngay tooñ Eumeu seen na xam ne nag kon séeréer ak Haalpulaar ñoom ñooy sëgg dañu ci ànd ak Abdourahmane Diallo ay barrage yu ñu def ci yoon yi nga xam ne dafa jëm ci kër bombardier benn waay sol yëre militaire taxaw ci buntu kër gi ci suba sii nii amul dara luy wane ni fii xumb na doom dafa sori ci yaay ji dama koy ñaanal nag dama koy ñaanal li may wax ama seen nag diggante tukulóor la ak séréer na séréer bi sëgg rek tukulóor bi jaar ci kawam loolu laa koy wax moom nag saa yu doom ji di bëre du seetaan télé teewul muy xam le ni stressé wul kooku moom premier combat ay deuxième combat ba léegi duma seetaan moom tukki damay xam ne ana génn ne alhamdulilahi rabbil alamin wetu kër B52 bu Mbour ay xale yu góor toog di ndékki kenn ci ñoom di xam leen ni xelam dal na yàlla daf ñu boole koo xamante ne si no stress dundee en plus tamit euh, bu dee xam-xamu bëri ma ngi ci moom bu dee doole ji ma ngi ci moom bu dee fit bi tamit ngi ci moom tey it gis nañ ne combat bi nam daan préparer combat euh, lépp lu mu si daan def rek def na ko ci ndax xam na li koy xaar ci combat bi. ci quartier bii nga xam ni mooy Château d'eau Nord ay xale ñu fekk leen ñuy fubal waaye ñu bëgg a làmb lañu ku ci gën tuuti sax di wax ni Bombardier war a daaneree Eumeu Sène. ci nan nga ko kaa wóolu. da nga moom moo mën Eumeu Sène. ay xàttal wala mu caxabal ko. waaw. bu rëy sax. buddi bi nag. Ah? da koy buddi gànd sax. ci open press am bi Bombardier xamle woon na ni dina def kéemtalaayu kàttanam ba couronne roi des arènes bi kenn du ko foqati ci loxoom. ma ngoog fii la ñuy tàggatoo mbokk yi jaajëfal leen bu baax a baax ci kanam tuuti 20h euh, Cheikh Tidiane dina fi teew ngir xibaar yi ci nasaraan jërë ngeen jëf.